solos ndaje yi mooy euh, dafa am lu ñuy wax rapport de surveillance commerciale maanaam benn rapport la boo xam ni ministère de commerce moo koy coordonné dafa war a xool yan jéego nanu def mu mu nekk côté douane mu nekk côté l'impôt mu nekk côté industrie yan jéego nanu def pour que Sénégal loo xam ne ñun moom nanu moom moom moom moom moom moom moo nu war ci biir UEMOA euh, ndax Sénégal mi ngi wàccoog moom ci en matière de njënd ak njaay ak jëflante donc loolu moo ñu fi indi parce que nu defee rapport boobu ba pare duñ ko war a jébbal UEMOA donc commission UEMOA donc suñ ko jébbalee ak aussi suñu yeneen euh, naataango yu nekk UEMOA ñoom ñëppay jébbal su boobaa UEMOA si loolu lay tënku pour def benn rapport bu mag boo xam ni suñu ministre du commerce yi ñoom ñoo koy xool pour mën a xam lan moo dox lan moo doxul lan lañ war a améliorer parce que objectif bi du caagin di wax yéen defu leen lii da ngeen war def lii déedéet rapport la boo xam ni dafa war a aider avant tout day jàppale dëkk yi ñu mën a xool lan moo doxul ba en tout cas améliorer lu mën a nekk donc loolu mooy soles ndaje yi pour ñu mën a xool rapport bi ñu valider ko balaa ñu koy jébbal waa wax am na si yokkute bu baax a baax a baax parce que vous savez xam nga organisation mondiale du commerce dafa wax ni dëkk yi. noo war a taw taxawal lu ñuy wax guichet unique guichet unique du commerce extérieur maanaam benn bànqaas boo xam ni lépp lu soo waree jéegaani bitim réew wala ngay jaay bitim réew lépp lu mu soxla ci document li nga war a wuti ci administration duñ ko war a jox opérateur possibilité mu mën ko am sur place ñun nag euh, noo def ay jéego yu mat a mat ci loolu parce que am nañu benn système bu nuy wax Orbis boo xam ni yooyu yëpp ci nan koy traité. nu traité loolu après douane jël ko mën a def procédure yi donc côté boobu moom numérique moom réalité la si euh, commerce extérieur ñu ngi koy appliquer bu baax a baax donc ñoom xam nañ lu ñu war def commission bi tamit bàyyiwul dëkk yi rek ñu def lu leen neex si rapport bi parce que dafa ni man rapport bi bëgg naa si gis lii bëgg naa ngeen defee que nii ngeen jox ma tel information te wax dëgg yàlla su suñu xoolee rapport bi ñun wàccoog nañu lu commission bi doon xaar donc fu mu nekk nii pare nañu pour valider que tey jii jébbal ko sunu ministre mu mën ko envoyé UEMOA su ko defee ñoom. ñu daje ministre du commerce de l'UEMOA pour valider rapport régional boo xam ni day tënku ci rapport a euh, dëkk yi